lay tee maa jóg way fi ngeen jilin seewey ñoo ma jommalul boppam soxna Jaara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 set mboor maam jaaraanu mat royu kaay moo man góor moo sellal ta moo jarataas moo set mboor moo rëy ngor ta moo doy waar moo am xaas jege poo xandeer la ñu boot moo am or am diine rafet melokaan yar say doom am jaamu sawar ta du tooñ raw sa baale xer xer wasamaan daawul tiit sang jàmbaara taw nga am daam yow yaa foor sang maandoo waral borom saam ak maam daam def jant yu fenk duniyaa raw ay weer sang maandoo waral ab xaayaan la yor tabu jee kuy taataan ay waameem fu nekk lay taajoñ njak joor bun sàngoy nelaw ma ngay joor ay rakkaam sun mbooyoo ku nay soral naan yaa ngay tuur bun sàngoy nelaw ma ngay joor ay rakkaam sun mbooyoo ku nay soral naan yaa ngay woor nee nañ sax da defar ma waay wantaay sun mbooyoo nga jox dëkkandooy sëñ Maam Moor doo boddee ta yow añaanoo doo ŋaayoo yaa sotti rafet taxawaay yaa la biir lay tee maa jóg way fi ngeen jilin seewey ñoo ma jommalul boppam soxna Jaara